di leen ñaanal yàlla yàlla bàyyi leen sunu kanam may gërëm waa koñ bi muy waa cité Ousmane Ngom ndax olof Njaay ne la koo ni nu ma la def rek nam la defa tax muy sama groupement ànd defar cité Ousmane suñu groupement ànd defar cité Ousmane Ngom muy suñuy yaay suñuy jabar suñuy rakk ñoom ñëpp macha allah bokk ci ndax olof Njaay ne na jamono ji tàllal loxo dafa dafa xewi ndax macha allah ku ci ne am nga ci looy yëngu ñii ngi ñaw ñii ngi cuub ñii ngi jaay ci garage yi ñii ngi jaay ndugu ñii ngi ñii ay micro maraîchers dañu ñii ngi def lu ne macha allah rek ndax am jom ak seen njaboot ñu créé fi nag avec sunu avec bi macha allah biñ ko créé yaakaar naa yi yokkute rek lañ ci jële su tabaski jotee ñu toj ko ku ci na faj say soxla damay bàyyi après sama yaay fàndaw dugg ci détails yi may dalal nag sama yaay jii di ko dalalati laay wax muy kan madame day Tické Ndiaye Diop DG ANAM olof Ndiaye ne ragal féete day xañ a wërsëg te kuy wàlliyaan sa kër daa tëggul yaakaar nay ba mu wàcc see ba léegi yéen a ngi ànd ak moom guddi ak bëcëg di saafonteeg moom muy macha allah doomi Adja Nguy njaay faama ak maam Yabsa nee naa ko yow laata ngay ñëw. sa papak sa yaay dañ laa xàllal ci koñ bi macha rajim bismillahi rahmani rahim ginnaaw bañ sante yalla jullu ci yonent bi di sant suñu way juri di sant tam wa waa koñ bi yépp ñi ngi sant ñëpp di sant nag kër tay mbaw gi nga xam fi lañuy ñuy te dëgg-dëgg maram kase ñu boot avec te avec bim ñu boot ah sha allah ñoo ngi ci maram kase tuuti kan yon nañ avec bo xam mi ngi ci koñ bi di ñu jappalé di jappalé jigen waaw ñu ànd ceeg ñoom Awa Cheikh ñoom Fatou Gueye ñoom Daba Dia ñoom ñëpp bu ma limee sax damay juum taan faan ndaw waaw di ñaanal nag ñu rek bongo yëgal njawel waaye day di kenn neexu leenam waaye ana ñi ko bëgg maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam du jox ku nekk wàccuwaayam fii ci cité Ousmane Ngom maa ngi nuyu nag sama sœur sama yumpaañ Fari Diouf waaye maa ngi nuyu maa ngi nuyu ma tey ak Pa di nuyu nag maram tey jii di nuyu maram kase parce que nag fii zone am la waaye maa ngi nuyu bu baax ñoom Faat Ndaw defe naa ne ñoom Mbaye ñi wax léegi madame Fall Ngoma et tant d'autres maa ngi nuyu ñëpp ku ne ci turam ak santam di wax nag mënoon naa sax bañ a jaar fii parce que nak li ngeen wane ne may yéen yéenay man suma ma ganye, ngeen gañe su ngeen deful leneen li ngeen wara def itam mu demee non parce que nak fi dama koy wax fi moy sama fief ndok yalla ba ngeen ko xamee ba jël engagement yi nga xam ne jël nañ ko waaye engagement bi yàgg ngeen ko di ko jël ma ñëw nag fekk fi man dama doon def rek proximité bi ma ñëwee je dis à madame Ndeymane je suis surprise je ne m'attendais pas xalaatuma woon ne dinaa fi fekk autant de monde dama def woon rek damay jaar saafonte daal di dem waaye seen xel moo tax ngeen toog di ma xaar te dégg naa ne yàgg ngeen fi maa ngi jéggal lool ci loolu bala may soli nag damay rendre hommage fi ñu toog à une grande dame euh, muy feu Ndeye jàlloo ku ne xam na nu mu meloon ci koñ bi ak nu mu meloon ci man ak Maram Kassé ci ñëpp sax je dirais tey yàlla def na mu jiitu ji ñun itam ñuy xaar yàlla na yéex may rek jëlaat sama njaal tegaat ko ci turu borom këram ak ci doomam ak ki nga xam ne moo bokk ñoo bokkoon kër gi nii rek la demal maa ngi ñëw rekk la donc yal na yàlla def fa mu nekk tey gënal ko fii mu jóge li ci des nag nee nañ kuy dund dangay def na kuy dund ñun ñoo fi des ba ak nu mu yéex yéex dana am bés ñu fekk ko kon yëpp rafet na li ngeen def yëpp rafet na waa koñ bi leneen li ci des nag mooy li ma fi indi tey naam dañuy saafonte waaye dafa am ay échéances yu ñuy jublu muy lan muy présidentiel yi xam day am le 24 février prochain ñu am nag suñu kilifa nekk suñu modèle nekk suñu mentor muy l'actuel président de la République je veux nommer son excellence monsieur Macky Sall Macky je dirais même le camarade Macky Sall mi nga que Sénégal bëgg ko un patriote qui ko ba mu jeex tabaxal le plan Sénégal émergent qui est ci mu def première phase ñu ne de mu évaluation deuxième phase là tous les secteurs de l'économie nationale kan mo gisul bopam ci Macky Sall tay ya, jeex na dama len bëgg gëna a déggaat jeex ya. voilà voilà voilà kon di mu ngi noonu mu ngi noonu li ngeen li ngeen li ngeen xam rek la waaye li ngeen xamul moo ëppati ndax man yéen jigéen ñi dafa am rek ci ñaari point yu may tool yu may taxaw Ila Touba bi dëgg la waaye dafa am loo xam ne dafa nekk ci biir kër yi muy lan ñu di ko wax le panier de la ménagère ku nekk xam na ne yaa a quelques avant Macky di jël réew mi ceeb ak dëwlin ak suukar ak tamaate ak meew lu jafe woon la weer bu jot mën nañ ne mu yokk mu dem ba nit ñi sonn loolu bi mu ñëwee lan la njëkk a def mooy wàññi ak gaz wàññi ba ñen ñi xam ne wàññi na waaw mu def nag ba mu wàññee ba pare dara yéegatul lépp fa la ko bàyyi waaye yéen du ngeen laaj lu tax yeneen réew yi di yokk te moom basam yokkuwul lan la moo koy fay différence bi Macky Sall la koy fay bi mu fi toogee ba tey loolu ngeen xam ko li ci des ma waxaat beneen point mooy làmp yi énergie defe naa ne am na ay at booba nekku fi maanaam amewul woon réew mi xuyu kamaj gi ma doon gis booba man dama nekkoon extérieur waaye dama daan ruus ne senegal laa jóge ndax image yi doon génn à la télévision ba mu ñëwee loolu ci li mu njëkk a attaqué leen tey jii ñi ngi toog làmp yaa ngi nii ñi ngi waxtaan te bu njëkk loolu mënuñu ko woon am bëccëg mënuñu ko woon am guddi kon tailleur yi am na tailleur yu nekk fi ñoom maam góor xam naa ne ci boobu ak ak Mbaye ak ñeneen dolli segu li ñu daan dugg nga mën a dugg une semaine def ko sa frigidaire wala nga def sa congélateur mënatoo ko woon loo jëlaat da daan yàqu ñaari yooyu rek laay wax. xëy nañu yokk ci tuuti les financement waaye kooku dafay wan rek ne mooy président bi nga xam ne dafa bëgg réewam te yërëm askanam te ñooñu mu yërëm nag jigéen moo ci ëpp. ndax suba su xëyee mi ngi nekk ci suñu ay soxla bu guddee ñun bu ñuy nelaw mi ngi nekk ci suñu ay soxla mooy président waaw loolu am na ah ak jeunesse bi ak jeunesse bi waaw les jeunes lu nekk def na ko jëm ak jeunesse bi voilà kooku nag xuusuma ci bilan bi ndax toogaay bi dafa yàgg ak troisième âge moo accès moom moo accès magistère ci social moo accès magistère ci defar nit waaye moo accès magistère am la transformation structurelle de l'économie nationale Moi, mo accès aussi magistère bonne gouvernance axe 3 du plan Sénégal émergent tay nga résultat rek la def taxaw soxla filles et garçons dafa bëgg ngeen njukkal ko nan ngeen koy njukkalee mooy au soir du 24 février ñu mën a mu mën a triompher ñun ñu mën a triompher waaye loolu nan ngeen koy defee mooy ñi nga xam ne jëluñu seen ay carte boobu ba tey ñu dem jëli ko xam naa ne maanaam Kassé ci liggéey lu mot ci ay maas aussi mi ciy liggéey donc ngeen joxe seen récépissé yi ñoom ñu dem jëleli leen ko sax bu fekkee loolu waaye bu ñu exiger seen présence tam ngeen dem jëli ko xale yaa ngi koy def dama rendre compte waaye dama leen gën a ñaaxaat ñi nga xam ne que ne seen carte jotewuñ ko ñu ñëw ñu jëleli leen ko wala ñu ànd ak ñoom jëli leen ko beneen bi rek mooy bu boobaa ñun engagement bi ñu jël ngeen pare na ko ba mu doyal naa yooyu ngeen def fii ngeen transport ko en vote bu boobaa nag bulletin bi moom yomb naa xàmmee fas wi la ak couleur bu marron beige loolu moom gis ngeen sax yi pour ngeen gën ko xam ñun ñëpp loolu lañuy sol donc marron beige rek la loolu nag boo gisee ma wax leen ko dama am ci moom yaakaar am ci moom gëm-gëm am ci moom wóolute xam ne ku bëgg réewam la te ba ngeen ko ko joxee tey li mu defoon dana def double ba wala triple ba au grand bonheur des dama leen di fàttali toujours ne boo amee président nga am jabar nga am kër yooyu da ngay seet màndarga bi Macky Sall dafa ñëw indil ñu chance macha allah ndax nag dëkk bu am pétrole sa xel war naa dal te pétrole bi yàgg na fi te kenn exploité wu ko moom moo ñëw osé ñëw def benn cadre boo xam ne dafa di cadre de transparence boo xam ne nit ñi dañoo toog saytu nan la ñuy defee nan la ñuy exploité pétrole bi yamul ci loolu dafa def kuréel de concertation et d'orientation mais mu defati cadre juridique bu nga xam ne dafa leer ne bu pétrole bi génnee dañ koy injecté waat ci économie maa ngi ñaan yàlla bu muy génn ñu di ko exploité yàlla na fekk ñun ñëpp dana fekk mu nekk président waaye yéen mu jëriñ leen parce que jigéen ñi am nañ ci góor ñi am nañ ci économie bi am na ci femmes yi am nañ ci voilà <laughs> Merci. merci merci merci beaucoup merci merci voilà waaw ma <laughs> il faut nous égaler. mais il faut nous égaler. man avec yi ñaari avec la avec fi fekk je y bi ñaari suis avec ak ñaari d'accord donc maa ngi leen am lu ma leen bàttali ci Marème pour ngeen gën a renforcer seen kees li ci des mooy sant sant ko moom mi sant ko ci liggéey bi muy liggéey parce que nag bañoo lu ma dara mi ngi daw ba bëccëg ci sama waaw naam staff bi ñëppay daw waaye Marème nag ci Sidi Ousmane Ngom wax dëgg yàlla dafa bay waaram ak Mass Diop ñoom ñi fi nekk ñëpp ñu ngi bay seen waar waaye moom mu nekkal jigéen xale yu ndaw am na ay xale des associations yi ñu ngi fii am na les jeunes euh, conscients c'est ça les jeunes jeunesse consciente am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ci jiitu woon ñoom aasi xale yëpp les bale yi ñu nekk ci bale bi tout le monde loolu ku mu doyul dara dootu la doy gis naa seen taxawaay gis naa ni ngeen ma jëmmalee gis naa ni ngeen ma jàppee fari elle agit elle aussi mi ngi def li muy mën ci suuf parce que mënul def li marem bi dem dem ak dig sama nijaay bi fi nekk waaw commissaire aussi mi ngi may jàppale waaye paa yi fi nekk yëpp ñi ngi may jàppale maire ma tey gis naa sa liggéey ana ñoom maada ana ñoom ñi ñoom ñoom ñi euh, abi njaay ñoo bokk bàyyi maa ngi yéen a bokk lépp ndax sama yaay mooy seen yaay sax sama papa mooy seen papa kon gis naa ni ngeen leen jàppee bi ma ci koñ bi di def proximité laa xam ne que ne jàppoo woon ngeen ak samay famille balaa may ñëw kon man dama ñëw fekk ngeen facilité ma yoon waaw jërëjëf jërëjëf di wax ci li may mujjee mooy ngi nekk à votre service parce que nag loolu moo ma war dégg naa ne ku la defal lu baax danga ko war a njugal kon nag ndal nañu fi yàlla bàyyi ba ren di déwén Pape Kassé ana sama frère boobu sama doom mi ci ginnaaw maa ngi leen di nuyu ñëpp gis naa taxawaay ku nekk ku ma tuddul turam xamal na rek lëndëm gi la gisuma la waaye yéen ñëpp yéen ngi sama fii

waajuru Adja Ndeye Tické Ndiaye bii toog ak Pa Pa Thie Yacine di délégué di quartier bi fi jógee ay wóllëre lañu woon Adja Tické Ndiaye ñëw sàmm boobu wóllëre yàlla xam na ni bi mu wàcc see ñëw na ba fii set ci Pa yasin dox ay tànkam tànki jàmm dox tànki njaboot dox tanki wajuram bi nga xamé ni tay dal nako dox ak pàcce yassine ñaari soxnam yaa ni tok muy suñu yaay njoba ak suñu yaay mère Diouf. alaykum ma ngi len di nuyu yeen ñepp ci seen tour ak seen sant di nuyu sama mak dikke mi nga xamni mom xamna ni ñun ño bokku bay ndax li démb la du tay mom li démb la du tay bi mu ñëwee la li am. Fi dembu la mbore mani la moom ak Modou ñoo yaroondoo nekkandoo xalé papam tamit yakku ci dara di def ay teraanga nak ci koñ bi di def sama papa di ko def ci ñepp nak kon nak tay ñun bu diké ñëwé ñu war ko jappalé wara bayyi ñepp japp ci mom té ñun mom man lima naan man sama jikko papa layore, yoré man benn yoon lay toy si maa benn yoon lay toy té ku ni la rek japp na la kenn mënul tax man ma jàpp bàyyi kenn man ku may xas ba jàpp rek jàpp naa la ma koy ñaanal yàlla nag sama mag la joo xam ni man mënu ma koo fay personnel la du lii rek ci si ñun du affaire politique bi rek moo ñu boole daf daf ñoo boole démb dañoo bokk baay démb tey doog a ñëw du politique bi moo ñu boole tey jii du tey démb la ñun te man démb man laay xool ci ci ci nit man démb laay xool du ma xool tey démb laay xool ma lay ñaanal nag lii ngay sumbi yalla nako yalla seigne Touba eggale ba nga am ci ndam te ñoo ngi ñun wa kër si Yacine Diouf ñu ngi ci sa kanam ñu ngi ci sa ginnaw tay ba suba ndax ñun ngor rek la xam te ñun tamit ci ngor rek lañu judd te ci ngor rek lañu xam mom rek lañu judd te ci ngor rek lañuy and ak nit nak ba soxla wuñu dara nak ñun du affaireu alal du affaireu dara ngor rek te ngor boobu ji ngañu ko baa bi ji ñu ko ñepp di nañ ko kon nak ñu lay ñaanal kastanu yalla di gëreem nak maram kase mi nga xamni tay ji lépp moom la ndax tey jii bu ko neexoon mën naa demee neneen bañ maa boole moom tamit dañoo bokk ndax taamu tey ak baaki démb lañ tey doog a ñëw ñun dañoo nekk démb tey doog a ñëw te démb boobu nag moom lañ jàpp ñun démb lañ tey doog a ñëw ñun ma koy sant nag di ko gërëm di ko ñaanal yàlla lépp lu mu soxla rek yàlla na ko yàlla may ñu ñaan nag le 24 yàlla yàlla may ndam ci doole Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dañ koy am fi def kenn de ko fee mës a def ndax suba bu ne da doon dégg kilo ceeb yokk nañ ci juróomi dërëm yokk nañ ci fukki dërëm depuis ba mu amee amatul gaas juróom ñetti téeméer lañ ko doon sarse léegi loolu amatul suukar warga yépp dafa wàññeeku depuis ba mu toogee amul benn marchandise bu bu ñu ne yokku na laa amoon li may wax waaw ñoo ngi feyeeku suñu bourse familiale ñetti wër bu ne nga am sa xaaliss légui maire yi ñu ngi lëmbee ji moo tax maire yi il faut ñu jappalé Macky Sall ñoo ngi jox mari mag ngi leen di nuyu te di leen sante Adja ndey suñu dom la papaam yàgg na ak papa jee lu mu saa xewle day ñëw ba fii ñëw wax si ko moom moo re rakkam ji nga xam ne tam ñoo bokk ndey ak baay di caatu meer bi mook baay Moodu bii ñoo daa ànd gu dégg ba cëg ba fii ñu koy waxee gia phụ lấy diggante kon nag ñu ngi jàppale ndey đi gia phụ lấy yaayam di jàppale paa bi di jàppale mbore ñoom ñëpp barki dem barki dem ma maa nga fa woon waaye damaa ñu comme dafa dëgër dafa sonn falaa toog waxtaan ak Fane Ndiaye guñoo lof tikke dañoo kontaan ci yow démb tey soog a ñëw ñun daal ñoo ngi sa kanam ñoo ngi sa ginnaaw ñoo ngi lay sant di la gërëm ndax sama doom ngi ci yow Amadou Koumé di la jàppale ñoo ngi ci ginnaawam nag ñun daal Macky la ñuy nooye ñun suñu keramul benn carte ku dul Macky Sall barke Khalifa Babacar Macky rek politique bi waaye bi ma ni ne ma fépp fu ma mënoon nekk tey maa ngi nii ak yow lu ma mën a def pour nga am succès dinaa ko def loolu ko mu doyul du ma dootu doy mu rappelé sama diggante ut diggante suma papa ak moom muy diggante bu nga xam ne que ne dafa nekk wëllëre dafa nekkoon xarit waaye góor gi dafa amoon lu ma gisoon ci moom loo xam ne du ma ne manqué na ma ndax lii dafa di lu gën waaye dafa nekkoon modèle parce que nit bu amee ful la am fayda ñeme ay position dafay nekk exemple nag ci société Doolou ko yàlla mayoon ko mu nekk chef de quartier koñ bi kon lu mu mérité woon la lu mu doon def la ak ab négation ba yàlla def li mu def mu des nag njaboot gi defe naa ne suma yaay xuja mi ngi ni toog yaay dabaa ngi ni toog ak xale yi ñoom gedd eh, ak xale yu góor yi ñu ngi fii ñëpp ñëw ñëpp a engagé wu derrière mois loolu dafa di lu neex mère Binta maa ngi lay nuyu Diop parce que yow itam sa doom mi ngi ci man xale yi defe naa ne je peux dire que ñëpp a ngi ci man waaw loolu nag ku mu doy dal duna doy nee naa mënoon naa bañ a def visite de proximité ci koñ bi parce waaye nag dafa rafet bu yi jotee ñu jàdd waxtaan ak yéen ñaari baat rek laa leen di dénk duma leen defal bilan Macky Sall parce que xam naa yéen ay Mackiste ngeen waaye te yéen a koy suivre ni ngeen ko war a suivre li ci des rek mooy liggéey bi ci suuf liggéey bi ci suuf du dara dudul kenn ku ci nekk am nga ay xarit am nga ay àndandoo am nga ay xamee am nga ay mbokk donc bul leen ko yemale rek ci koñ bi

ndax jeunes yi nekk dara day liggéey pour que ñun ñu continuer di am euh, un niveau de vie acceptable que sénégalais yi dund dund gu neex day liggéey pour lan pour que Sénégal nag nekk un pays émergent au même titre que pays yi ko am gënuñu ñu fi ñu jaar li ci bari fa la ñu jaar xëy na affaire bi tardé woon na waaye moom kat bi mu ñëwee daf ko accéléré dem ci infrastructure yi dem ci lu nekk dem ci énergie su ma koy lim tey du jeex parce que tam jaru ko parce que ñi may waxanteeg ñoo xam ne ils sont convaincus la maintenant damay seet ci ñoom xëy na ñoom xam ngeen koo xam ne que ne il n'est pas convaincu ñooñu mooy sama cible mais pas yéen parce que yéen vous êtes acquis à la cause de Macky Sall kon nag li des mooy lan li des daal ñaari yëf dong le 24 février Moy vote bi waye dafa am préalable préalable bi mooy bu ko bëgg Macky Sall wala nga bëgg ndey ticket na nga yëkëti dem jëli sa carte bu gennagu <laughs> mam gor mam gor mom tay <laughs> ndexal waw na nga jëli sa carte moy étape bu préalable bi bi nga xamné soko deful loo yéene yéene Macky doo ko woteel donc bu ñu jógee ci jëli carte yi des parce que nag jëli nañ carte yu bare waaye dafa am yu des seet leen ñi nga dëkkal ñi ngeen dëkkal ndax am nañu ay carte ndax seen ay carte génn nañ bu loolu wéyee nag bu 24 février nga xam ne dañuy dem ci mën gàcce ku nekk yaag yàlla yaa yéen a fay nekk ku nekk yaag yàlla yéen a fay nekk doo fa bokk ak keneen la ngeen dige woon bu ñu duggee ci biir ngal la nañ ko def ndax parrainage bi wane na Macky Sall la nit ñi bëgg kon parrainage bobu na na yeen ko transformer en vote na nit ñi dugg ci mbañ gatché gi jox ko ko jox ko candidat bi gën ci Sénégal parce que nak dafa am candidat candidat yi candidat waye candidat bo xamné dafa leen won limu mu indi bilan tek ko tegal leen programme encore koku bu len waxe na len defal len ma njukkal meat, len ma at ngeen gis lima len di liggéeyal ba pare nak ma dem sama yoon keneen ku mën jël li la Macky Sall wax kon dama bëggoon yeen ñepp ngeen waxandoo ne ne du ngeen ménager benn effort pour que Macky Sall jëlaat ndam li au soir du 24 février kon vive Macky Sall vive Macky Sall

bon nous sommes les premiers jeunes de ce quartier mboolem kuy suma morom te nekk ci koñ bi waxtaan naa yow pour ñu jàppale Ndeye Tické euh, man Gambie laa nekk di fa jàppale Macky Sall bokk AFP maay secrétaire général chargé à la vie de l'administration de l'AFP en Gambie waaye Macky ah, li mu def ci Sénégal def ko ci àll bi def ko ci ñun Gambie ndax amoon nañ ay jafe ay jafe yu metti Gambie waaye taxaw la ci taxaw bu rafet ba tey ñu am jàmm po bi nga xam ne tey mak Sall def na ko ñu naa defu ko moo ko def ab euh, Senghor jéem na ko mënu ko Abdou Diouf jéem na ko mënu ko Abdoulaye Wade jéem na ko mënu ko ci jamonoom la sottee euh, kenn ku nekk boo amee jabar da ñaan yàlla mu am wërsëg boo boo amee jabar dépense la nga xëy takk jabar xéewal ñëw nga sant yàlla loolu mooy Macky Sall ci Sénégal euh, for la léegi ma am soixante-dix kon xam naa Sénégal xam naa Sénégal euh, pétrole yàgg lañu ko ut mënul am Senghor ut na ko amu ko Abdou Diouf ut na ko amu ko Abdoulaye ut na ko amu ko ci jamono Macky Sall la sottee kon kooku jigéen mu am góor mu am wërsëg la ah man nag koñ bi fii maa nekkoon seen jaati Gàmbi yen ñi xam ngeen loolu xale bu fi jógee ci man ngay dal Gàmbi kon politique ma pour wut alal politique ma pour dara dama fi ñëw seet suma njaboot ma gis ne ticket li fi fiy def aminte na ma grand frère ma ne ko ah, mu ne am nañ fi benn jigéen bu dynamique ma na ko mooy ka mu ne ma day ticket pour na jàmbaar yi daaw moo ko fi def jàkka bi ma ne julli fa ñu ne ma moket yi moo ko fi def ma bi ci jumaa bële ñu ne mbokk yi boo ko fi def ma dem ci beneen jàkk bële ñu ne mbokk yi boo ko fi def kon ñun nga ko defal kon ñun nga defal loolu aminte suma rakk la maa leen war a yore te suma loxo doyul parce que suma responsabilité waaye tey utal nga ko liggéey bi ngay liggéey Dakar te li mu am ci ñun la ko indiwaat kooku c'est une fierté pour nous tous loolu dama am volonté pour jàppale du loo ma jox du lu ma gis si yow du dara waaye li ngay defal li ci koñ bi sama xam loo fi def ñun nga ko defoon moo tax ma toog dama la woon jeunes jeunes yi bari laay ñibbi ma ñëw sa bureau nga ne ma ngeen la ma toogal mënu maa weral sama toog mais am li ma li ngay def nii loolu laa war a def defi Gambie ñi may wax xam nañ ko maay président de l'Union sénégalaise de Gambie kon am naa fa cër bu mag waaye nag boo ñëwee suma koñ gis ñu euh, kuy liggéey dama ko jàppale dama la bëggoon nag naka laa mel rek ci koñ bi nga xam ne nag sa xel daal di nga ndam wax naa la ko si ko am fii mairie baa ngi ñëw mairie baa ngi ñëw dañ ko war a jàppale mu jël maire bi mu jël maire bi Macky Sall jàll na ba pare nañ jàppale kii mu jàll te óor na ma óor yàlla maa ngi koy wax fii Macky Sall bu jàllee kii dina nekk ministre dina ko nekk maa ngi ko wax fii elle sera te bu nekkee ministre waa koñ mi ñooy ministre ki am ki am dërëm di jox bu amee julli sa xel dal loolu lañ ko ñaan yàlla yàlla ko defal jàmm waaw yàlla yàlla def jàmm. ah ma ne def ko wala keneen wala xaadim mi taxaw sa wet ñu dem leen def porte à porte waaye dafa bokk ci saafonte ak yéen parce que man maa ngi dakaar damay ñëw ak di dem bu dara amee ñu tase waaye baax la de temps en temps ñëw gën a Eh, lii dama gis xale yi ñëpp ñu ngi fi sama yaram sax dafa daw ko on dit ndax eh, engouement bi ma gis nii affection bi bi am nii sama digganteek yéen parce que base baax na waaye base affective daf ko dàq te loolu laa am ci cité Ousmane Ngom sama sama sama sama liggéey man je sama staff mooy sama famille xalé yi ñoy sama famille yeen yéenay sama famille parce que c'est une même famille donc nekuma ci en terrain inconnu wala terrain bu nga xamné ne que damay sét li na wala nangam déedéet je suis à l'aise ici li ci des moy rek ci li ñuy jëm defe naa ne di waxat ci bilan Macky Sall wax nañ ci waxat xam ngeen yeen bi Macky Sall di ak tay lan mo yok ci yeen lan moo yokk ci yéen man de xam naa ne yokku naa yokk ngeen li ci des mooy nit nag bu la defalee lu baax bu xëñëwee soxla la dangay taxaw ci soxlaam te Macky Sall jàpp naa ne defal na lu baax askanam su may wax askanam damay wax peuple sénégalais bi ndax ba mu faloogul la commencé di liggéey ci yéen avant même muy bëgg réew mi mi ngi liggéey pour yéen bi mu jëlee réew mi mi ngi liggéey pour yéen def na li ñuy wax PSE laal na secteur bu nekk ndaxte wax na ko léegi ci panier de la ménagère seulement am na yeneen yu wax xam ne mën nañ wax ne lu mel ne énergie daan taxaw fii loolu nit ñi xalaatuñu ko woon parce que ndax xuy ko maj ñu mel na ñoom maam góor ak ñoom Mbaye nga xam ne dañuy jëfandikoo ñaw daan nañ toog bëccëg wala semaine yàlla duñu mën a ñaw bu ñuy commencé rek affaire bi dakk jigéen ñi yéen ñi dem marché ku nekk xam na ne dem marché bés bu nekk dafa metti bu dee quelques légumes quelques euh, morceaux de poisson benn kilo yàpp wala ñaar bëgg nga ñaar ay fan yoo xam ne da ngay toog sa kër fekk na duggoon nga demoon nañ ba lu nit dugg mu yàqu kon tey jii bu ñu mënee am nii nekk à toog ci koñ bi am làmp c'est grâce à Macky sàll Ndeye Tické mënul dara lu muy def président moo ko koy sant kon su ñoo ñëwee ngeen am satisfaction man damay gën a kontaan li may ñaan rek Moussa gis naa sa taxawaay ndax Moussa dafa def loo xam ne yéen ñëpp da ngeen ci war a bég lii mooy engagement lii mooy bëgg sa koñ ñëw seet si ma xam naa ne booba xamuma yéen a ko wax sama sama sama existence ici ak lu may def moom dafa xamante woon ak Macky Sall ca Gambie amoon rôle bu mu fa daan joué nekk militant wu AFP waaye dafa gis lii mu ni mankat li ñëpp di jàpp naa dem jàpp comme ñoom ah mu engagé wu nag ndax li muy def dugg na sama xol li ngeen di def mi ngi koy def mënoon naa ñibbi keroog def na ma damay dem damay dem euh, Gàmbi dama bëgg a dem ma ne ko déedéet demaloo da ngay toog mu daal di toog xam nga loolu dafa neex ku leen bëgg a ngi nii parce que pour moom daf ma war a encourager daf ma war a jàppale ndax ma mën leen a jàppale loolu engagement la bi may wàcc léegi ma sayere yi jéggalu ma ne ko yow leen li ngeen di def ci suuf moo dàq sax li ngeen def ci kaw te yéen ñépp koy def li ci des rek mooy ñu préparé wu pour le 24 février xam ne seen candidat bi ngeen am mooy le meilleur candidat candidat bi ngeen am mooy le candidat de l'espoir et de l'espérance candidat bi ngeen am mu taxaw bëgg doona jëlaat réew mi mooy candidat bi ñëw ak mandarga wërsëg macha allah ñëw ak pétrole ak gaz dëkk bu pétrole ak gaz am population yi war nañu am espoir ndax loolu day jóg jur xaalis bu baree baree bare te xaalis boobu dañ koy injecté waat ci économie pour le développement économique mais aussi social de notre pays te Macky Sall dafa jël serment bi mais kate danaa ko gérer dans la transparence mais dans la gérer selon les lois et règlements en vigueur sur les principes de droit parce que sénégalais état Sénégal état de droit Donc, donc pétrole bi dama koy tek ci charte pour que Sénégal population bi mën ko Nous que ñepp yam ci waye mu dugg ci économie bi waye nga transférer transformer sen devenir changer sen devenir pour que ngeen am un bien-être économique et sociale Moi, kan suis Macky Sall Macky Sall moo leen soxla le 24 février ma bëgg ngeen votel ko ngeen jël fii engagement Vous di ngeen Macky Sall qu'il pleuve ou qu'il vente bu neexee pas. da ngeen ko jox seen carte et bu neexee yàlla da ngeen ko ñaanal ba mu président de la République du Sénégal au soir du 24 février vive le Sénégal vive le président Macky Sall. ton kon say jega fi nek say say frère ak say sœur kër gi mama Masata Gueye moko ko kep ko xamé da nga bëggon téré watal wala mu ñaanal la ci mama sa nga na ñew mu ñaanal la bari na xalé yu fa judd ñu ci bari mo leen tudd tuffi seen lopp kon dañ koy ñaanal fa mu tedd yalla ya yaxam sedd kon sëñ Galas ñi ngi leen di nuyu bu baax seen sœur madame Detike jaay job yi nga xam yeena bokku bay ndax mam yef sala won rek ak mam Masata Gueye kon mo ñewoon rek di saafoonte ak yeen campagne bi ñëwoon na fi daa daawaati jéeg avant muy defante politique dellu si waat ci vraiment di leen ziar di leen taatagal di dox dox war a ñëw parce que Kër Baye Massara ak Baye euh, Yacine Ndiaye seen relation nekk na relation ñu xam bu baax daal ci ak jàmm ak lu bare bare bay man nag man day nekkuma kuy yëngu yàlla am nattoon noonu mooy koo xam ne dafay dafay dafay test nit ñi loolu sama natt sama sama natt la lii sax c'est la première fois may yor micro di wax nii wala ba bariwul mais euh, danaa jar nga ko donc euh, dina xamal ne daal euh, ñun ñu moom jox nañ la ko waaw parce que da ngaa fekk ñu ñu ñu ànd ak vraiment da ngaa fekk ñu ànd ak ak ak Macky donc soo ñëwee loolu da koy gën a sa sa da koy dëggal suñu daf daf ñuy daf ah, dañuy euh, xam nu ñu mën a waxeeti day renforcer vraiment suñu bëgg waaw suñu bëgg suñu suñu suñu ànd ak daal suñu ànd ak yéen ndax daal sa xel daal lépp loo xam ne ñu man nañ ko ci jàppale leen incha allah dinañ ko def lépp loo xam ne mën nañ ko rek jàppale nañ ko def jàppale gi nag wax naa encore une fois nekkuma kuy tam di ñëw nii mais sama kër ak sama xool moom ànd naa ak yéen te du leen yàqal te dinaa leen defar lu ma mën defar incha allah damaa mënut a wax nag mbooloo wax bu bari dara xamal na daal ñëw nga war a ñëw te lu jàppale leen jàppale incha allah baax na jërëjëf. Eh, di jox ku nekk wàccuwaayam bu ngeen xoolee sama kanam sax xam ne dama am mbégte dama nekk à l'aise fi ko waral mooy nag ñëw sama kër. Eh, fii sama kër papa la kon yéen sama ay frère ñoo fi nekk ñi ma toogal sama ay freer lañ sama ay ñu nekk ci ginnaaw kon loolu dafa lu am solo sàmba wax na ko léegi maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu galas di la nuyu di nuyu ñi fi toog ñëpp wax na ko sanq ne ñëwoon naa fi effectivement à mes débuts je ah, ngeen ñaanal ma defe ba tey maa ngi continuer di ci gis nag a ah, ndam di ci gis ay avancé kon dama ma duma mën dul wax leen jërëjëf euh, wax ji Moussa wax na wax ngeen ko euh, yéen manaam mënoon naa bañ a ñëw waaye ñëw bi damay ñëw saafonteeg yéen loolu la waaye ndax du ngeen woteel Macky loolu moom moolu moom defe naa ne su ma ko waxee wala keneen wax ko loolu man dama gëm ne da ngeen di voté Macky Sall ndax li ngeen wax dama ko gëm parce que xam naa ni nitu conviction ngeen nitu dëgg ngeen donc su ngeen ko waxee dëgg la li may li may li may yokk ci loolu ginnaaw bi ma ñaanalee sama papa ji yàlla na yaxam yi sedd eh, yàlla yàlla def mu rëcc lu mu fi doon yàgge eh, maa ngi rek di sabab lu ci yéen parce que Samba wax na ko xëy na di ngeen joxe seen carte law soor moom du wóor na waaye dama bëggoon ñu dem au delà au delà bi mooy lan képp ku ngeen xam képp koo xam ne seen am du jàmm la bu ngeen ko gisee ngeen wax ko la def genre nekk màkkatawu le président de la république parce que yéen comprendre ngeen les enjeux xam ngeen kan mooy Macky Sall xam ngeen lu Macky Sall def ci réew mi xam ngeen yan sacrifice lay def xam ngeen li mu nekkee patriote xam ngeen ni mu bëggee réew mi ak li muy liggéey suba guddee ngoon tous mi ngi liggéey pour le devenir du de ce Sénégal de ce Sénégal et des Sénégalais loolu moo tax le bien-être économique et social des Sénégalais je pense que loolu la bëgg euh, kenn wax na ko léegi fu ne mi ngi fay dugg li li feeñul moo ëpp li feeñ mu ñëw nag yàlla def nit nag da ngay am seetlu parce que le pétrole là yàgg na ci Sénégal amoon nañ ko sax ci Bissau mais mosu leen ko gis mu am ay retombées moom mu commencé def ko concertation te damay laajte def def cadre de concertation teg ko Petrogaz te damay laajte naka lañ koy saytoo nañu xool waxtaan ci nit ñi ku ne jox sa sa xala xalaat mu woowaat na bi mu pare yóbbu ñu euh, fële euh, si kat ñu toogaat fa ku ne jël sa parole. wala ñu def ko en direct ñu wax lan lañu xalaat ci fonds yi mu noté te bu ñu ñëw amoon ay proposition waaye bi muy dem dafa yokkaat ci li mu indi woon ndax ne nañ déglu ñëpp ku wax loo xam ne que ne c'est pertinent dañ ko jël en considération mu ci gestion ñu wax mu dindi un cadre juridique xam nga loolu c'est transparent un cadre le code code du pétrole est sorti donc loolu dafa di lu am solo muy rek lu jëm ci si askan wi moom mu xalaatee ko ne dafa war jëm si askan waaye ñun itam ñun ñëpp ñu xalaat ne bu génnee exploitation bi dafa war a profiter au Sénégalais mu nangul ñu ko loolu la xalaatoon mais mu nangul ñu ko loolu bés bu génnee da ngeen gis Sénégal ni muy changer mais avant ça li nga wax il a quand même changé le Sénégal dañu dem tase Kaolack te fan yee tasewuñu sax dama ko doon accueillir ir euh, foofu ak Kaolack ñu indi lu mel ne ay drague yooyu ñuy jaar ci voie navigable lu tax dafa bëgg le transport maritime ah fluvio maritime soqaliku boo bëggee dem fenn mën nga jaar bateau dem Rufisque Dakar te doo am problème parce que doo jaar ci embouteillage mu boole ci Ila Touba ci autoroute yi mu yokk ak ainsi de suite ñu dem ba yàgg mu ñu ni ñu ni ko lii suñu drague yi ñu indi

Mais je suis du parce que suba soo xëyee projet waaye mu jeexal lu bari entamé lu bari ba nga que Sénégal dañ koy roy déjà dañu président déjà Sénégal dem dañu bëgg sénégalais grâce à lui je crois que lii buñ ko ko mayaatee njukkal ka dana def lu raw li mu nga que li nous avons précédé pendant 50 ans des lu de non en sept ans quand même c'est un président à féliciter à encourager et à réélire vive Macky Sall vive le Sénégal